waaw ñun moom ren def nañ ci effort yoo xam ne sax kawe na sunu njort ndax képp ki nga xam ne acteuru transport nga ak foo mën di nekk Sénégal am nañu ab lëkkaloo ba def ay campagne de sensibilisation pour que ñu muy mën a indi nit ñi ci jàmm delloo leen ci jàmm waaye nag effort yooyu ñu def yëpp ak taxawaay boobu tërëwul am na lu metti loo xam ne am na ci màggalu ren gi muy fukki nit ak juróom-ñeent fii ñu wax ak yéen ñàkk nañ seen bakkan ci accident de la circulation te loolu mën naa ne ci juróomi fan kepp la le 10 ba le lu toll ci euh, maanaam juróomi téeméeri sorti ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn 596 sorti sapeur pompier def nañ ko lu toll lu ëpp juróom-benn téeméeri nit nekk nañu ay victimes ci accident si accident yi euh, fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakken ci fukki nit ak juróom-ñeent yooyu li ci gën a doy waar mooy juróom-ñeent yëpp ay moto jakarta la ñu yore. kon yaakaar naa ne am na liggéey bu mag bu ñu war a defaat ci sensibilisation jëm ci ñi nga xam na ñoo dawal moto jakartaay parce que